na euh, juréli bi départ na wasaare làmb tàmbali na ci jàngat làmb euh, tey ma ànd ceeg sama jigéen sama chéri euh, sama xol muy soxna Fatma tey moom laa àndalaat comme ni ñu koy defee saa su ne naka weekend bi ak cere yeeg yu mel noonu xam nga ni yow su ma la yaakaaree ci jabar dee yàkkaloo ma defaloo ma dara asalaamaaleykum yéen ñuy seetaan si Wassare Lamb Wassare TV comme ni ñu koy waxee rek den bëggee di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak ñaan yàlla rek at mi ñu dugg mhm. doon boo xamante ne at bu gën la suñu yàlla yokku xéewal gi yokku kattan gi yokku lépp ci baax Seydina Mohamed euh, mais bàyyi jiili maa ngi lay baalu ak bu baax a baax mhm. di nuy waat mhm. baal naa la baal ma euh, tam xarit bi yow xam nga dama laay cere cere bu amul fenn ba ba kuskusan la baal yàq der anam yéen kan moo ko lay mais vidéo yaay fii ba pare yar bi jërëm bu ko indi bàyyi mu ñëw ndax am na bay solo. allahu akbar. yaa ko wax. kon de bàyyi naa àdduna. <laughs> mais nag kon gisuma cere gisuma dara. naka weekend bi. sant yàlla bu baax a baax a baax. neex na bu baax a baax. ndaal xëy naa jour tam xarit euh, lekk sama cere sant yàlla lendemain bi nag. ma dóor sama blaax sama soxna su baax moo ma yekkal laax madame Kébé Dior Fall sama xol bi sedd trop vraiment kontaan naa ci waaye sama yeneen cere bi nag moo indiwoo wax dëgg indiwul indiwul gars yi euh, tey ñu fas yéene waxtaane bilan écurie Yoff ndax xam naa ne su ma la toppee nii li may bëgg daanaka ci sëy bi du ma gënal daal euh, bilan écurie Yoff lañ bëgg a waxtaane écurie Yoff ñu ngi am cinq victoires euh, trois défaites munoo nekk palmarès boo xamante ne ah écurie Yoff jàmbaar rek noo ko gisee. Baye ah, Djily écurie Yoff écurie Yoff daaw euh, hmm. ñoom ñoo jëloon nga xam te moom mooy suñu làmb door bi. Hmm. ndax ñoom moom ak yeneen écurie la. Hmm. tey mën nañu wax ni mbas mi. ñu am cinq huit combats kon ci xayma lañ bëri lañ bëri. cinq victoires trois défaites. mais euh, palmarès bi wax dëgg yàlla bilan nii. aw ma ci satisfaction. Hmm. waaw ndax xam la xam nga tey coronavirus bi. Hmm. moom moo kii yëpp. Hmm. ndax boo gisee kii yi nii c'est cinq victoires trois défaites. amoon na ay combat yoo xamante ni ñoom war nañ mooy jaww war naa bëri ak ak ki nga xamante hmm. di euh, kii euh, comment dirais je caatu euh, ngewal. Hmm. am na beneen combat wante te na koo bëri. Hmm. na yeneen xamante ni même njin bu yoof ñoom ñëpp. kon cinq victoires yi trois défaites yi waaw mën nañoo par rapport ak daaw. ak daaw mën nañoo wax nag peut mbas mi. moo tax parce que daaw ñoom ñoo jëloon sunu lamb door bi euh, ren bu ñu defee cinq victoire trois défaites xëy na xel xel nangu na ko ci ci écurie bu mel ni écurie Yoff rawatina ki nga xamante ni mooy leader ba Malick Niang bëriwul toog na ay at yoo xamante ne fi mu toll nii bëriwul kon lépp lu ñu am rek xale yee ko fa yóbbu mais dafa am leneen lu ma jaaxal muy caatu njóol ak fils de Zallo du ñu bëri ñoom ñaar fële ci arène nationale keroog bi ñuy génn ci arène ba arbitre bi euh, caatu njóol la jox victoire ma dem ba ci digg bi dégg ni def nañu recours euh, jox nañu fils de Zal Lo victoire mais li ma ci gën a ëllëg mooy dama gis ci palmarès bi biñ koy lim boolewaale ci ndam bi nga xamante ni caatu ngeewal moo ko am. Mhm. loolu nag bokk na ci li ma jaaxal tane woo ma ci. bàyyi ji waa parce que mhm. lool noonu xam nga tey euh, kii dafa waxoon ni caat dafa laal kiyam bi moo laal xam nga nan koy waxee. comme nan fii fii moo laal. lañ moom moo moom moo laal. Mhm. mais boo gisee après chute bi. da ngay gis ni. Euh, Thiatou Nguéweul moom moo teg la action moom moo def action. Mhm. Euh, kii dafa déposé un mhm. mais finalement Thiatou Nguéweul ba léegi moom lañ jox victoire parce que mhm. affaire bi jàppul. loolu moom moo tax. mais Thiatou Nguéweul moom parce que fils de Zal moom yàggul tuuti ñu déggaat fi combat am na combat moom it Thiatou Nguéweul am na combat mu doon xale boo xamante ni moom Thiatou Nguéweul keroog bett na ma ci làmb ji. parce que façon bëre bi mu bëre fils de Zal euh, malgré ku Zal loo indi doon sa bàyyi indi la ci làmb nga war a mën a bëre loolu moom maa ngi moom indi ko mais teewul euh, wane na jom wane bëre boo xamante ne da ngay xam ne xale bi mbërantaan la moom caatu ngéwél caatu ngéwél mbër la mbër mm. kaamil la mm. ndax boo gisee combat mu deeyam yépp da koo réussir mm. mais combat nga xamante ni moom lay négligé li ci ëpp ko ciy daal ndax moom mën na bëri dafa mën bëri hmm. macha allah te dafa mën bés wax dëgg yàlla hmm. xale bu mën bëri la mun koy moom mooy kii mooy day xeeb mbër hmm. ma juumul moom ak Ada Fass bëriwuñ fi waaw bëri na waaw moom laa moom def si daf gis ni mu ñëwee ci combat bi ak combat bi ni mu ñëwee c'est diamétralement opposé combat bi dafa ñëwoon imposé boppam parce que ñu bari dañoo tegoon ci fils de mais nag dafa won ni carrément comme ni ma am na doomu mbër ñuy bëri ak moom soo amul fit dëgg doo bëri ak ñoom ndax tey Zarloo ku mu indi rek da ngay xam ne kii moom bët kaamil la Papa Zarloo ñu koy nuyuwaale au passage. Hmm. mais keroog gën boppam ndax boo gisee caat ngir dafa xeextan naa. Hmm. porté nga combat boobu ba pare wane ni carrément moom. Euh, di ko gars yaakaar moom amu fi. mu jaatu njool moom combat hmm. tay bu dee yi moom. Hmm. da koy réussir. Hmm. mais combat yi nga xamante ne nag moom nañ naan ay dina ko daan wala du gis tout le temps. day échec. ñu koy félicité nag a baax parce que ren tamit bokk na ci révélation yi. ak yi moom mooy sekk naan moom it mu nekk xale boo xamante ni ba mu ñëwee ci làmb yàggul. mais benn defet la am. ndax boo gisee defet bi euh, booy ficelle moom moo ko daal. amoon na sax combat. moom itamit ci révélation yi daal la bokkoon. mais ren tamit gis nañu defet bi mu am moo xaw a pénalisé mais ñu koy encouragé bu baax a baax ndax xale bu mën bëre la ndax dafa toj mbapati mm. toj na mbapati am na fu da ci li muy def ba pare dafa kii quoi dafa dafa mën bés moom it xale la mii dafa mën bés macha allah moom Seck daanaka. am na am na beneen xale bu fa nekk kii l' enfant euh, nu mu tuddati. Euh, petit l' enfant petit l' enfant. Mm-hmm. moom euh, moo moo bëriwoon far bu jar arène nationale. ñoom daan ko jël boo xamante ni macha allah jël bu amul benn werante. Mm-hmm. bëri ci wane ci boppam wane ci jom wane ci fulan mu mel ni am na ay xale yoo xamante ni yoof ku leen jàppale ñu dem ak ama bu yoof si ama bu yoof nga xam ni euh, xale yooyu bu ñu duggu see da ngay xam ni ñii dayooy mbër gi yëpp mu ngi ci ñoom te ku leen jàppale ñu dem kon xale yooyu fi mu toll nii moom nan nga giseek ñoom non xale yi xam nga ay lébu lañ maa ngi wax lébu day am jom hmm. te ñoom dañoo nekk écurie boo xamante ni ndax boo gisee écurie yoof ak yoof mbooloo mm. muy écurie bi nga xamante ni moom la ñoom caatu yoof nekk mm. ñu leen nuyu passage benn écurie la mm. ñoo bokk fi ñuy entraîné ak ñoom xeeru ngor lan mooy seen kii bi mooy différence bi kii yoof la nekk yoof mbooloo mais ñoo bokk fenn fenn fu ñuy entraîné dem naa fa nga gis ni ñoom ñëpp benn nañ parce que booy ñoom dañuy bëre seen biir Malick Niang donte combat am ak ki nga xamante ne mooy Ama Mm. ah la gëj a e bëri n'est-ce pas. moom Ama Baldé la gëj a e bëri. Mm. année blanche mun na toog ay ati ati. ak bëriwul. Mm. Euh, mujj mi nga xam te ni ñu koy félicité waale encore une fois ci li nga xam ni moom mooy bi. di ko mm. ñaanal ko jik nga xam te ni moom depuis loolu moo yor flambeau bi. Mm. ndax gis nga ni bëri na ci. ba pare di encadré booy yi. combat ak kéwél. ñu gis ne dafa ñëw def fulla def fayda xale yi kuy bëree day ànd ak ñoom ak caat bi nga xamante ni tey dafa waroon am lu mu leeral mais malheureusement li nga xam te moom mooy mbas mi nga xam ni booy yi wax dëgg yàlla ñu ngi def li nga xam ñoom ñoo leen war parce tey suñu làmb yor boo demee ba jël premier. ndax nga xamante ni yi fi nekk macha allah bari nañ nga dem ba premier kon ñooñu wax dëgg yàlla xale yu am fulla la. ay jàmbaar la naan jàmbaar la. Mm-hmm. naam nag ren moom résultat bi kon ni ma la rek. Mm-hmm. mais daal wax dëgg yàlla ay xale yu am fulla ak njëg bu yoof ngin bu yokk moom mm. nekk xale boo xamante ni gis nga combat ak tonnerre de mm. am na combat moom ak ki nga xamante ni moom mooy euh, xale malika bi bulldozer bulldozer aha mu nekk moom tamit koo xamante ni dafa topp ci ginnaaw mojja moom it di def fulla ak fayda mën bëre ñu bari nag dañ naan peut-être dafa xorom si dafa xaw a des mais xale la boo xam te am na avenir ci làmb te mu ngi ñëw wax dëgg yàlla écurie Yoff moom booyi moom macha allah hmm. macha allah hmm. entraîneur bi nag ñu koy nuyu hmm. gis tout le temps da leen di encadré Malick Niang doonte amul combat mais tout le ginnaaw xale yi di leen encadré lépp moom it nag wax yàlla namm nañ ko moom Malick Niang waaw ndax ñi ngi wax combat ak ki euh, ko ko gisee combat bu neex la parce que Lac Rose ñoom ñaar ñëpp ñaari mbër lañ yoo xamante ni làmb dafa am ci ñoom yaakaar euh, Lagos mi ñu gisoon euh, ay deux mille deux mille treize deux mille quatorze deux mille quinze làmb soxlawaat nañu gis Lagos boobu Malick Niang nag euh, du mbër moo xamante ni tey dañ naan làmb ñu ngi koy gëstuwaat mu ñëw wala yu mel noonu parce que Malick Niang jaloore bi mu def ci làmb ak nombre de combats yu mu bëri am benn défaite. bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a mel ni lu décroisé ci làmb te ki la daan mun naa daan ku muy Ama Balde mhm. mun na daan ku nekk ci làmb tey Ama daan la mu doon erreur boo xamante ne Malick Niang daf ko def dafa war a ñëw rectifier li nga xamante ne mooy erreur am ñu ko mën a rectifier mooy warul toog année ab bu yàgg te bariwut parce que xale boo nekkee xale écrit yoof yaakaar la nga am foo xamante ni jëm nga ko ci làmb war naa mën a amee loo xamante ni da koy wane ci sa bopp mhm. eh, mu doon mbir moo xamante ni eh, làmb yaakaar nañ ko nga gis ni ki ko daan Ama Baldé war naa mën a daan ku nekk ci làmb mais nag mbër saa su ne euh, ni ko sama papa euh, Max Mbargane di waxee naan dimanche bu jot bëriwoo rek perte nga parce que mbër dafa doon loo xamante ni daf nga war di compétir chaque jour Malick Niang nga am na defet boobu defet bi bett na ko mais war na mën a ñëwaat ci làmb mu nekk combat boo xamante ne askan yi bëgg nañ ko Lac Rose Malick Niang Malick bu apt Lac bu apt non ñoom ñaar ku leen yóbbu arène nationale tukk sa bënn saañ ba réer la ndax ñaari borom jàmm ñaari jàmbaar lañ ñaari borom fit lañ ñaari mbërëntaan lañ ñoo xamante ni te ñaari njool lañ ku ci nekk ñoom ñaar am na loo xamante ni mën nga ko te mën nga bis te écurie Yoff ku ñu ngemb indi la stade euh, écurie Fass ngemb la indi la stade dina doon combat boo xam ne combat dër dëgg dëgg dëgg dëgg combat boobu moom ñu ngi ñaan yàlla na ko suñu borom sottil ba ku ci nekk nekkaat ci say activité ñu gis vrai Lac Rose gis Malick Niang ndax xam naa ne dina doon combat bu neex sama hmm. Fatima. dina doon combat bu neex mais jili hmm. euh, dañu gis ne Malick Niang hmm. dafa bokkoon ci xale yoo xamante ni euh, suñ papa père Biraye li wax peut être mën na ci xam dara ndax moom dañuy jàng rek mbër moo xamante ni dañ doon wax dafa nakkaree daal ndax taayam mën bëreem am fitam day gis Malick Niang kuñ doon wax Malick Niang day bëreeg Malick Niang dañ naan tey baa du ko dóor mu daal loolu dañ ko doon wax. Hmm. tey Ama Baldé est que tey Ama Baldé daan Malick Niang. Hmm. jaar na tey Malick Niang ñu gis ni xam parfois di nga reculer il faut reculer pour mieux sauter. di leen hmm. wax mais est-ce que tey recul bi nga recul bariwul ndax gis ni dem nañ ba benn instant de Ama daan na ko mais Malick Niang pour man boog li ko pénaliser yëpp. taamu adversaire. ndax Malick da ngay gis mbër bu daanoo pour nga mën a rectifier dina jox mbër mais tout temps. day delloo di delloo delloo ba tey ji la mu banoon hmm. mu nangu ko est-ce que lii nii mu def lu njëkk moom soxna Fatima mooy Malick moom dafa ñàkk ci diggante ak Ama Balde toog lu mat at bëriwul ñu di ko gëstu di ko wutal ay adversaire mu ne moom dafa feebar dafay faju loolu mën nañ ko ko nangul waaw dafa feebar day faju ba ñu bari yaakaar ni Malick ña xëy na dafa feebar ma ngay faju mu jékki-jékki ñu annoncé ni moom bàyyi na bëri li tax mu bàyyi na xëy na moom moo ko xam ndax wolof def na kii tëdd ci lalam moo la gën a xam màtt lalam moom moo xam li tax mu ne ah day bàyyi ba ñu bari jàpp ni maa leen bàyyi na mu ñëwaat ci làmb ne ah ay mbokkam ay njëgañaaleem ñi ko ngemboon ci làmb ñëpp ne nañ ko warul bàyyi dafa war a ñëwaat mais pour man li mu njëkkee woon li mu mujjee woon da ko waroon njëkkee li mu njëkkee woon mooy am nga defar sa diggante ak Ama Baldé jëlaatal beneen combat vite fait nga rectifier sa erreur toog ànd ak say mbokk xool ban yoon nga jëm parce que Malick Niang bu ma juumee ñu ngi ko doon proposé ay adversaires yu bëree bëree bëri yoo xamante ne ay adversaires yu baax la te yoonu làmbam la woon boo xoolee combat bu mujj rek moo Garga Mbossé Garga Mbossé xaar na ko un an yoo xamante ni ñu ngi démarché combat boobu sottiwul ba Garga Mbossé mujjee obligé dem jële Moussa Ndoye keroog euh, Père Max Mbargane mu ngi naan ah Malick Niang de buñ déggee li mu bëgg a waxee ak ñun mooy pareegul pour bëre. parce que proposé nañ ko Garga Mbossé waxtaan nañ mais ni muy waxee ñun daal mooy pareegul daal pareegul euh, mu doon loo xamante ni làmb yaakaaroon nañ ko mu dem ba mujj gi Garga Mbossé mu jël na beneen combat rectifié erreur am bi mu amoon ci contre Boy Niang euh, rectifié ko ci diggante ma Moussa Ndoye moom mu bëgg a jotaat Garga Mbossé te làmb nag dafa am loo xamante ni moo ci am mooy da ngay daan dem boo daanoo da ngay xaar kon comme moom Garga Mbossé dafa daan day yóotu keneen koo xamante ne tey jàpp na ni moo gën a kawe Malick Niang mais Garga Mbossé ki mu yóotu sax mënul gën a kawe Malick Niang mais dafa gën a compétir Malick Niang muy Sa Thiès parce que ki la daan euh, ki ko daan moom nu koo raw parce que Sa Thiès tey mënu raw maali Niang parce que Malick Niang moo ko daan mais ñoom ñaar ci boo gisee euh, ki leen mujjee daan parce que ñoom ñaar fi mu toll booy xool. Euh, Boy Niang moo leen boole. Mm-hmm. Boy Niang boole bi mu leen boole nag moo tax Sa Thiès dafay ñëw mën a wane boppam euh, Garga Mbossé jël wane boppam ñoom ñaar ñu daje fi mu toll bu doon combat boo xamante ni combat bu neex la mais Malick su doon maay moom euh, avance su Reug bi mu rejeté wala avance kii bu doon maay moom tey Lagrosse mii ñu koy wax bu mu ko rëcc. Mm-hmm. na jël combat bi ànd ak ay mbokkam Lagrosse ànd ak ay mbokkam ñoom ñaar ku ci nekk ñu ñëw que le meilleur parce que jàpp naa ni loolu mooy làmb. Mm-hmm. làmb ju neex la soxna Fatima. làmb ji neex na wax nga lépp. Mm. te comme que dañuy liggéey ci temps. Mm. Ah, dañuy tàggoo tàggoo bu dul tàqaliko waaw di la wax ni sëy bi daal bu ko jël di ko def comme fowukaay sëy la te da ngay sëy fi mu toll nii te tamxarit bi indiwoo cere tabaski bi indi ndawal korité bi gisuma sama xaalis kon di la jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jaajëfal fépp fu waay mën a nekk di seetaan wasaare làmb loolu la leen indiwoon seen jàngat làmb man ak soxna Fatima di ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb bàyyi la nga tàggoo. waaw xanaa di leen remercier waat bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen ñoo ñu taamu si wasaare làmb wasaare TV di ko nuyuwaat bu baax a baax mu suñu papa Père Birahim di ko di naan ko daal kontaan nañ ndax dañ la daan bégee di la xool yàkkamti di tourné ak yow ay émission tey nga ñëw nekk suñu war suñu mm-hmm. wet kon mën nañoo wax ni am nañ loo xamante ni ñu bari amuñu ko xanaa di ko ñaanal bu baax a baax mm-hmm. di ko bégee moom kàggu bi nga xamante ni mm-hmm. wax dëgg yàlla day sonn suñu bu a baax chaque jour ñu def ay erreur mais ñu naan defet li dañuy ratifié moom di ko ñaanal di ko ñaanal ki nga xamante ni moom mooy séeréer bu nice basi Diouf ko ni ma koy waxee à chaque fois moom la rek ah. waat rek jox dig daje ba kañ. ba ëllëg incha allah fii ci jàngat làmb ak soxna Fatima ak Baye Djili jaa ngeen jëf. jaajëf merci.